mbokk amateur yi kii di la woo saa la woowee yóbbu la foo xamante ne nii da ngay gis sa cosaan Gaston Production mbokk yi le 4 février fan lañ jëm arène nationale lan moo fi xew ñaabu ndaw mooy daje kan Zarko fi ñëpp baax bu ñaabu ndaw ni mën naa ci dara mbokk yi le 4 février arène nationale Gaston Production makkat meeg ñi ñëw taxaw ànd ak Abdou Lahad waaye yemul foofu de xanaa yaa ngi fàttaliku 2006 CLAF kalaaf dellusiwaat na wax la kalaaf bi ñan la jàppal ma caatu yoof mooy bëri ak kan njaay tiin bawal war a feeñ mbokk yi làmba ñu noonu waaye bul fàtte ni caatu yoof kat ci victoire la jóge waaye duut saane ak kan njaga doole lamb jooju lambi doole la képp xel yaay daan booy jaxaaw ak gargëdd gargëdd dafa wàcc bëri xale yi tolloog ñoo maaseek ñoo boo yaraa kan lay bëree ñu ne gàmmu géy mbokk yi le 4 février arène nationale ah mbokk yi le 4 février mi ngi noonu nag mbokk yi sponsor yaa ngi xam ngeen ni bis bi bisu làmb rek la bis bi bisu culture la le 4 février bu ko kenn fàtte mbokk yi kaay lañu daw gaaw fan lan jëm arène nationale laa ilaaha illallaah attention ñaabu ndaw dem na jël ñaar fu ñuy mujj ñaabu ndaw laa ilaaha illallaah ñaabu ndaw xale baa ngi attention jën kere Zarko daje nañu ñoom ñaar laa ilaaha illallaah Zarko jël na ko daan na ko jëli bi leer na jërë ngeen jëf mbokk yi ñu amati mbétte contentement baax a baax mais ñu ngi amati mbétte baax tey ñëwaat fi nga xamante ne mooy koñu ñaabu ñaa la nag ñaabu ndaw adversaire Zarko tey moo ñu woo fële si stade Arène Nationale ah diggante Zarko tey ak ki nga xamante ne mooy ñaabu ndaw mais fi ñu ne Omar fi may géejawaay ñu gën ko xam ci Gunaas ah roi bu dee ngi ne fële si yu côté mais ñu ngi dugg tey fi nga xamante ne mooy koñu ñaabu ndaw ñu xool li nga xamante ne mooy fan ci club ñaabu ndaw ak nu ñu ko préparé ak fan ci club Gambie bi ak waa tey géejawaay nu ñu pare seen doom ñaa bu ndaw na la fas yéene jàkkaarloo ak ak ki nga xamante mooy Zarko Omar dañ dugg ci biir ñu xool gars yi ñu waxtaanee lamb wane lamb xewle si na tey ne fi ñu nekk na fii gox la boo xam ne fii la Mathia Pédra dëkk coach su Elage a ngi noonu ñii si ñu coach ay ay ay coach su Elage <laughs> mais ñu mel ne Omar wala Omar ñii dawal sa ñu ngi leen nañ la. mais tey dafa mel ne euh, xale bi waaj na pare na. waaw mais noonu la ci bis bu mag la jëm mu nekk examen ci moom xam nga ñu am fu ñu koy xaar dëkk yaakaar ko mu préparé nag bëgg combat bi jox cër ki nga xamante ni mooy adversaire am Zarko ñu ëmb ko géejawaay yëpp topp ci ginnaawam ngir lan pousser ko pour mu am ndam waaw li ko war mooy ñëw bañ a bis bi ñëw wane li mu entraîné wane ni moom xale daam fu mu bëgg a dem mais ñi Zarko doon bëreel ak ñaabu ndaw du ñu benn duñu benn. mais mais Kouthia su su euh, technique laa bëgg waxtaan ak yow est-ce que euh, Niang bu Ndaw di ko conseil mu xeex ak Zarko wala. waaw lépp lu làmb ji laaj rek xam nga la xam nga làmb parfois da ngay ñëw xam nga li ma la wax mu ñëw mu mu laaj xeex nga xeex mu laaj bëre mu yomb nga bëre dem mhm. Niang bu Ndaw adversaire ñu ci bari day ñëw am na suñu bëri ñoo xamante ni du tala xeex ak ñoom parce que day jàppanteek ñoom mhm. xam nga ñu ñëw bëre si mu jàpp leen daan leen mais làmb tey ji seendu ci xeex seendu ci bëre ndax booy waaj na lépp barki salaatul faate wàññi na lépp. tamit dinañ ambiance dinañ bëre te dinañ xeex bu soobee yàlla yonent bi. ci kanam di abu. jërëjëf Omar koñ baa ngi nii Omar ñu dugg ci kooku mooy coach su El Hadj gars yaa ngay préparé di waajal bis ba <laughs> ñaa bu ndaw sey <laughs> ñaa nee na léegi tur ñaa bu ndaw ñaa bu mag la gars dama ne pare ngeen de. pare ngeen Omar pare ngeen dof bi ngeen di bëreel de Zarko. Ah, Zarko dërëm. bàkki Serigne Ba mu dara lu def daanu. ñaabu ndaw kasa la xale la dafa soxla. bàkki sëñ Fallou dañ koo yónnu yaa xam di nag. billaahi wallaahi taalaay. ci kanam lay neex ñaa lépp moo koy def Zarko def dara day xaar. bàkki sëñ Fallou ñaa mooy diriger de. alxuraan defu ci kanam. bàkk alxuraan abul. waaw yow dund rek. gaa yaa ko de Omar. coow la tàmbali na. Zarko ñaa bu ndaw. waaw gaay <laughs> fii mooy ko ñu ñaa bu ndaw. borom salon yi na ngeen def. ci loolee ne. ñoo ngi ne ñu ngi ci jàmm. ñoo ngi ne ñoo ngi ci jàmm. loolu waajee. ñun pare nañ. yoxla jëli ko ñoo ko fa am. Eh, waa ñoo ko fa am. ñun faale Zarko ñoo jóg dañoo nekk ci yoon. Zarko day xaar. Ah. waaw. kon rendez-vous. rendez-vous ci kanam. stade. la am yëpp ku koy def. am yëpp ñaabu ndaw moo koy def Zarko day xaar tey. Zarko day xaar dañoo nekk ci yoon duñu taar tamit nag. ba ci kanam waaw ba ci kanam. Omar yaa dégg loolu. waaw ñu ngi koñu ñaabu ñaar bu ndaw jëkk lay dëkk lay jugee ñoom Macha Pereira Lirou Diane fi lay jugee nee na xale bu tuuti la feragut <laughs> gis nga xoolal ma gars yi supporteru Gambia takk seen drapeau Gambi waa Gambia xam nga xale bi mu ngi progressé yokku na ci làmb li mooy làmb saa bu ñëwee wane boppam cey làmb xale yi la ñuy yuux naan ñaar la topp gars yaa ngay toog si bopp koññee. di waajal di préparer Omar Boy yaa ngay préparer ñaa bu ndaw jàmbaar yaa ngi ni xaama jël gaa yi eh <laughs> Zarko mel ne am na problème tey nag. Zarko nag li ma lay wax Zarko ngir yàlla Zarko yow fi nga dugg nii nooyul de géejawaay nga dugg géejawaay c'est le bimba c'est le millier barki yàlla booy dina le ni ñaar dina la daan barki sëñ Bamba dina la daan ba toog sa kaw. ah lamb mi lee la woote mi lee xale tamit te géejawaay sala bimbang fi lañ dëkk fi lañ yaroo Zarko da ngay ba jamono soppeeku Zarko da leen li njaa kii di ñaabu ndaw dina leen li njaa bëccëgu dara kàmb barki yàlla Grand Yoff amul milieu da ngeen xaar mais yomb yomb combat bi boobi la moom li ngay déranger hmm. ñaabu ndaw xale la te booy bi tey dina ko wax na ma xale la booy bi mën fuuf géejawaay la dugg de de eh, ñoo gën a soxla ñun dama bëgg ñu dégg ñu suñu làmb bi mooy suñu combat combat bi mooy suñu combat combat bi moo tax ñu bokk si làmb mun ñu ko perte ñu pare wuñ sax pour daanu grand yow xam nañu géej waaye baa a baax a baax ñoom xam nañu géej baax a baax a baax lii la ma lay wax nii ñoom bu ñu bu ñu xoolee dina xam ne fu may waxee baax a baax. waaw léegi léegi lépp day leer. ah Zarko. dem dañuy dox dem stade dañuy dox señ sëñ Bamba Mbacké combat bi ñoo la ko gën a soxla jëluñu ko pour daanu de pour toog sa kaw moo ñu tax a jóg bu jour ba da nga xam. ñaaw ndaw ñaaw ndaw gaa yaa ko awar. ñaaw bu ndaw Zarko. eh ñii tokkalu añi. eh añi fu mu toll. ci loo ne. maa ngi nii rek. ceeb bi ceebu kan la ceebu caaw ceebu ñaabu ndaw. waaw ceebu ñaabu ndaw la kay. waaw ceebu ñaabu ndaw la. tey kan mooy reer Zarko ak ñaabu ndaw ku ciy reer tey. ñooy reer eh. ñun ñooy reer. Zarko suba si la moom. suba si la moom waaw ñun ñoo moom ngoon. ñeen dafa soxla de. soxla ñun ñoo gën a soxla. waaw. ñun ñoo gën a soxla fuuf. di ngeen a soxla yéen. noo soxla ñun ñoo gën a soxla. Zarko soxlawul de. ñu dem ci biir Omar. Zarko ñaa bu ndaw ah xoolal maire yi yéen maire yéen yéen maire daa mel sawar maire yi de. waaw ah, loolu loolu nga foog. waaw Grand Yoff maire Grand Yoff ñoo sawar de sax ma maa fekk ñuy daw di def lu ne. loolu nga foog danoo sunu mbër. waaw waaw danoo wóolu sunu mbër. nga gisee ñaa bu ndaw tey. am jom rek nag am jom bëgg li muy def. ñu koy ñaanal ci barke Seydina Mohamed mu am ndam lu sedd guy daan daan rek daan la ñu xam moom la ñu xamal daan rek daan la ñu xamal moom la ñu tàmmal daan rek barke sëñ Bamba daan la ñu xamal non non non miin victoire. miin victoire barke sëñ Saliou yàlla naka yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed ci barke Seydina Mohamed ñun ndam rek la ñu xam. jërëjëf baax na yaru na am na respect bëgg na. maire da nga tiit. Omar kii kurus la yor xool kurus gi xool kurus gi daa tiit di da ngaa tiit eh, yaay ñaabu da daa tiit yor kurus yaay ñaabu da tiit ah liiru mais maa ngi lay nuyu di la siyaare mais mais mais voyage bi naka mu baa sonn si yow. yàlla demal nañ ci jàmm ñëw ci jàmm voilà. bëri na coow de. lool après lool du wax fii tey lambu ja ñu indi. sama doom mooy bëre sama rakk sama xarit sama jarbaat di ko ñaanal yàlla may ko ndam sedd loolu ñu fi indi. mais Zarko mais Zarko. oh nga ma Zarko kan mooy. mooy kii mooy kii daan bàyyi. kii à Zarko oh arrête. la gosse là je connais la gosse la ñaa je connais ah. bandi la wéyu la sàcc la agresseur la maa la wax loolu. Zarko waaw xanaa gisoo mafia bi. Zarko ne millier la booy lamb mooy fi indi booy loolu après la. bu doon milieu laa woote. milieu lamb ji lamb milieu la. milieu la woote lamb milieu la. waxuma kooku mbër mbër mbër mbër mu kii la nu mu mbër mu yàqu la ndax tàppet la téye micro dafa gën a yomb téye micro dafa gën a yomb wax. mane ne téye micro dafa gën a yomb bëre. wa waa baax na jërëjëf. xoolal fii ci baat bi. waaw li Mali de. yàlla nañu yàlla defal jàmm tey làmb jën fi ma wax loo. làmb jën tubaarikàlla masala xale pare na sama xel dal na yàlla na ko yàlla sutura oh, fi lépp fekkuma fi waaw incha allah loolu loolu wax ji waaw loolu lépp après loolu lépp après la waaw loolu lépp après la on gère on gère après may leen ma on gère après yàlla na nu yàlla suturaal lii mbokk amateur yi kii di la woo saa wu la woowee yóbbu la foo xamante ne nii da ngay gis sa cosaan Gaston Production mbokk yi le 4 février fan lañ jëm arène nationale lan moo fi xew ñaabu ndaw mooy daje Zarko ki fi ñëpp baax bu ñaabu ndaw ni mën naa ci dara mbokk yi le 4 février arène nationale Gaston production makkat meeg ñu ñëw taxaw ànd ak Abdoulaye. laa la illallaah attention ñaabu ndaw dem na jël ñaar fu ñuy mujj ñaabu ndaw laa ilaaha illallaah ñaabu ndaw xale baa ngi. attention jën kere Zarko daje nañu ñoom ñaar. laa ilaaha illallaah Zarko jël na ko daan na ko jëli bi leer na.